juste am ben incident bo xamanteni xewon na ci le combat ciori li ci torop mu soulevé pas mal de polémique tay le lendemain du combat mo tay ñu sét ci nga xamanteni moy moy le principal concerné fas yéene si ak moom benn waxtaan mu apporté précision mbëri ñu lay nuyu. wa tandu ma lay fay sante yalla julli ci yent bi sante suñu ñaar waji bi sante suñu serigne serigne babakar Mbacke mu kaburo borom daru Salaam ak gaar mu yàgg fi te wer di sante sama supporter yi wax deug yalla gis naa taxawee jàppale bi xam nga wa di ziar ñep rek wa comme ni ma ko waxee léegi rek dem nga waron bëree def lepp lu war ci combat bi wacc ko sérieusement mais nga ñëw ba ak quelques minutes nga am den abit waron na souffler sa digënté ak sa adversaire am ben incident bu ci xew lan nga dundé lool wa dañuy santal yalla rek dañuy santal yalla bu baax di jéglu di encore une fois di jéglu promoteur bi nga xamanteni wax deug yalla mbëri Sénégal yi bëri nañ fu mu taamuñu ci bis bobu noonu dañ koy jéglu di jéglu akhlu lamb gi yépp wax deug yalla di jéglu képp ko xamanteni xam nga supporter aline sey numéro 2 rek ñu ngi lay jéggalu te xam ne affaire bëggee ko noonu noonu mais lu may wax à fois rek yàlla moom mooy xam nga mooy décider jaam la ngay bëgg mais yàlla moom mooy dogal noonu la ko tuddee dañuy sant yàlla rek wax dëgg yàlla loolu moom bokk na ci li ma gën a naqari ma duggee dooree dugg ci làmb ba léegi ñëw ci làmb làmb ji loolu bokk na ci li ma gën a naqari sama carrière mais nag dañuy sant yàlla rek te xam ne yàlla moom mooy dogalee nu ko neexee démb ci guddi gi bi nga bi nga dellu see jóge fi nga xamante ne mooy hôpital ñu daal ma ñëw daal lay tiim mel li ma liir sa visage mooy am nga déception bu rëy ci li jot a xew. waaw c'est normal ma am déception ndax wax dëgg yàlla combat bi suma combat capital la woon xam nga ma pare ma pare ni ma ko ni ma ko war a pare ànd ak samay mbokk ànd ak waa écrivain gi yëpp wax dëgg yàlla kenn kenn desul géejawaay kenn desul. xale boobu mag mbër ak mbër ñëpp yéene ma ndam li même ñu nga xam ne bokk maa ñëw écrire ak lu làmb laa lay maam Cheikh Fall du caméra yi man lañ faral di ma yéene ndam xam nga si gis ay kanam yoo xam ne dañ lay xool nga xam ne ñii yow la ñu yéene ndam ni ay ay mbër yoo xam ne bokk bokkuñu yow écurie sax xam nga di la ñaanal xam nga loolu kon sant yàlla la préparer suñu combat yàlla nam mu ci loolu dañuy sant yàlla rek te xam ne li ñu waroon def yëpp def nañ ko ànd naa ñu ñu war àndal yëpp sonn ci combat bi xam nga mu demee noonu dañuy sant yàlla rek. ma faral di dégg également say jege ñaale ni camp adversaire dañu yàggoon préparer pour yàq làmb ji kàddu yooyu lan moo ko mën a firndeel. waaw loolu mun naa ne ndax loolu mënu ma ci sore xam lu tax mënu ci sori ndax man ñoom xaw ma lu ñu xaw ma ñoom lu ñu def rek ñoom la mais man am naa matu mat goo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du ma yàq sama bës ndax du ma préparé sama combat ay weer def ci li ma ci war a def yëpp ànd ci ñi ma ci war a àndal ñëw ba dernier réglage yi ñu ma koy yàqal loolu du ma ko nangul kenn boo xoolee ñoom njëkk nañ koo def xam nga mu xaw a sedd ñu jàpp sama turandoo yóbbu ko Alioune Sèye Junior ah ñëw na mooy mise en wu di dem boobu quatrième combat xaw ma cinquième combat bi mooy daw may dox nii benn booy bi dogale ma ginnaaw xëpp ma sunguf maaju maaju ak ak Alioune Sèye Junior koy karkaral xam nga joteek moom foofu noonu bañ jàpp ko yóbbu ko police la fanaan xam nga ñu def ko te xam nga mbéju kan nag borom moo koy fajal boppam am na loo xamante ni nag du préparé sama combat ay weer daj ci ay coono di yeewu subaak ak ngoon fu ne ma dugg fa fu ma xam fu ma xamul sama mbokk yëpp jóg xam nga ñëw ba foofu noonu xaw fu mu jëlee butéel xaw ma lu ci nekk xaw ma lu butéel bi di xaw ma lu butéel bi di jëriñ xam nga ma koy seetaan alors nga revenir tuuti ci feeb bi rek incident bi nga xamante ne xew na nan la demee. waaw incident bi moom wax dëgg yàlla xanaa dangaa ngaa nekk journaliste di laaj rek wax dëgg yàlla li fi li na fang moom kenn du ko jeex ndax xam nga yow ci làmb ngay dund soo newul woon làmb ji tamit seetaan nga làmb ji xam nga ñëpp seetaan nañ làmb ji ni mu demee gis nga ko maa ngi ñëw di def samay samay samay samay samay samay samay dernier tumbukaay di wër moom mbër bi ci boppam boo ngi mu ngi mu ngi signalé waaj ndax maa ngi dox nii di di wër mu ngi signalé mbër mi mu ngi signalé mbër bi na mu ngi signalé booy bi naan ko sa waay sa waay ngi ñëw xam nga boobu maa ngi dem si troisième troisième côté bi di romb booy bi te maa ngi ko dégg benn interview démb mu wax ko si wasaare nit ki donte dañ lay rey sax na nga wax dëgg caméra laa waxee billaahi wallaahi ak li ma dese ci ak li ma dese ci dund yàlla bu ma ko fekkee bu fekkee ne booy bi yëkkati naa kàddu wax ak moom ba kay saaga laa la wax nii kon yàlla na ma safar jël àddiya barki maam Serap Fall bu fekkee ne booy wax naa ak moom de wax wax xam nga dafa ne dama saaga booy bi boo tax booy bi xëpp ma kii bi bu fekkee ne moom bu fekkee ne yëkkati naa sama gémmiñ rek wax ak booy bi ah kon yàlla bu ma yendu kon barki maam Serap Fall gémm bu waxul dëgg rek waa fen man man noonu la ma noon la ma yàlla bindee bu lii xew rek xam nga ñu am ñu ñuy poroxandool di am fu ñuy jafandoog yooyu loolu doxul nit ki donte dañ lay rase da nga wax dëgg ñoom booy moo am moo def erreur moo tooñ ko reconnaître ñoom ñoo tooñ mais pa ñu ut fu ñu jafandok ay mayor yor ban ak mako dor barki maam Seera billahi wallahi wa taala ak lima ma dese si carrière lam kon yalla bu mu yegg bu fekkee ne yëkkati na ban dor ko bu fekkee ne yëkkati ban ban dor ko kon yalla bu ma fekkee ngol xam nga man sama dund gi moma gënal ay bëreek yoy non te awmu ben intérêt di di wax lo xamanteni naka su dund non la barki alcorane karim mais dama ne nit soy wax na nga wax li am soy wax na nga wax lo xamanteni ni bu suba bu ñu leen pëkk pëkk pëkk pëkk nga li mako ko xam nga loolu dama koy dama benn benn benn parenthèse rek euh, entraîneur am bi tamit xam nga moom gis naa ko mu julli fii ba ba ba fii kii te julli dafa am loo xam ne daf koy dindi ci nit mooy maanaam xam nga maanaam xam nga di di di dox ci dëgg di wax dëgg xaw ma Aline Fall la xaw ma kii dégg naa ko muy wax n'importe koo xamante ni moom wóor na ne man moom wóor ma ne kii li muy wax nii bu fekkee ne julli tamit julli am na loo xam ne ne moom xam nga des na des na ci moom waa dese naa dëgg ci moom. ndax amna lo xamanteni nit waru ñu la dekk mi ko rek wala nga far ba ba wax nako sudul nonu fekke julit gi ngay wax deug na ci yow bo mu jaral la ngay sukk di ñaan yalla <coughs> amna lo pardon amna lo war nga ko jom wax dañuy sante yalla rek nak wax deug yalla di sante yalla bu baax ni ñu yalla def ni ah, mais bu ñu taxaw sétlu ci image ñu gis ni waji xëpp na la affaire euh, soit la mu munti doon nga daw songo ko di ay coup mais ban moment nga sanni touser na la blessé na la. ci moment bobu nonu koy moom instant boobu la ma dóor moom ñu bëri dañoo yaakaar ne ci ful bi ni kii man looloo ma gën a looloo ma gën a yégloo ndax instant bi ma koy dóor ma maa ngi sentir ne direct gi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi wal léegi bi ma gars yi téye ba moom moo état mënatuma maîtriser ci laa jël banc noonu la demee noonu la demee ndax du ma préparé sama combat nag wax dëgg yàlla ay weer def ci li ma war a def yëpp benn nit boo xamante ni kenn xamu fu mu jógee daggee fee ñëw di ma ko yàq ndax butéelu kenn xamul butéelu lan la xam nga ma défendre sama boobu balaa kenn dama défendre ndax tey su ma taxoon naan CNG danaan la waaw bind kërëb kërëb xam nga sant yàlla daal. avant ngay dem hôpital aussi di faj ñu gis nga temps sa passé nga temps bu bëri ci biir stade bi la ma waraloon patiente bu yàgg boobu. waaw c'est normal mooy li may wax rek géej waaye yëpp dañoo topp sama ginnaaw te booy tool naa si ñoom foo xamante ni yàlla xam na ne bu malaayka doon wàcc sax ñu affronté ko. ñii defal nii ñii defal nii dañuy def lii dañuy def lii buuxante boobu noonu loolu moo tax ñu yàgg ci biir kii bi meetu dara waaw. nga dem faju ju également mun nañu xam précisément ban hôpital nga demoon passe fa soin. waaw bu ma jógee stade moom wax dëgg yàlla boo demee laa jubal direct. waaw ñu ñaw ko xam nga waaw. frais de yi ci promoteur bi tëggoon làmb ji moom moo ko assuré wala say jege ñaale ñoom ñoo ko fay. waaw jarul loolu ndax loolu ay procédure lay laaj demal fii duggal fii xam nga. maa faj sama bopp wax dëgg yàlla maa faj sama bopp waaw maa faj sama bopp maa dem xam ma fay ñu faj ma waaw moo xëyee léegi demaat naa hôpital ñu waaw ndax bi ma bi ma bi ma xëyee sël mu kol dafa dafa dañoon ma dem gars yi pansement ko kiiwaat ko. Hmm. Euh, lan ngay sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo ngànk làmb ji muy waa CNG ginnaaw xeexoo bi nga xam ne am na lan nga bëgg ñoom ñu doxalee ko. waaw moom mooy xam nga ñuy éviter yu mel nii rek xam nga xoolaat xoolaat xam nga ñu ñuy taxawoo làmb bu baax a baax a baax. ba pare di bàyyiwaat lépp seen loxo ndax xam nga lu ne fànn kenn du ko jeex Sénégal yëpp monde entier xam nañ dañ maa tooñ xam nga maa leen di bàyyi ñoom ñu def seen liggéey rek aw ma leneen lu ma leen di wax waaw maa leen di bàyyi ñu bu bu mel nii daal di xew démb euh, tax na Alioune Seye am benn dogal bu bëgg a jël ci carrière am waaw pour l'instant moom mu amul lu ma wax maa ngi toog xam nga faju waaw entre temps may waxtaan daal maa ngi maa ngi xool daal maa ngi waaw waaw maa ngi xool. alors ñu bàyyil rek doon nga tàggatoo. waaw tàggatoo gi moom xam nga di jégaluwaat rek sama supporteur yëpp waaw di di jégaluwaat sama supporteur yëpp rek sama supporteur yi surtout sama supporteur yi maa ngi leen di jégalu bu baax a baax baax a baax bu combat bi desee weer lekkatuñu naanatuñu xam nga fu ne ñu ngi fay dugg ñii bàyyi seen liggéey xam ñii di fanaan ci buntu kër gi xam nga sonn. foo xam ne moyen dina fa jéem a kii rek ñu xam nga di encaissé yi ñaar fukk jàmbur xam nga 1000 francs bu jàmbur wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ne jàpp na ci combat bi ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm ndax boo boo limee rek di nga am ñoo xamante ni def nañ ci loo xamante ni ka nga lim sax defu ko ci te xam nga te nit dafa gaaw a gis boppam ñu ngi gërëm ñëpp képp koo xam ne man Alioune Seye maa ngi jàkkaarloo caméra bi jàppale nga ma te yàlla tax maa ngi lay sant di la gërëm du ma si tudd kenn sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp waaw alors boo ko internet yi mi ngi noona mu doon la première réaction à chaud de Alioune Seye numéro 2 gannaaw incident bi nga xamante ni xew na démb fee ci arène nationale digganteem ak ñàkk jariñu mu doon image boo xamante ni vraiment nekkul lu honoré image u làmb parce que moment où nga xamante ni sponsor yi ñu ngi daw làmb moment bi nga xamante tey làmb problème yi bëri na ci trop kase mbëri également ñi ngi ñi ngi regressé wu donc di gën a wàcc problème bi bëri le débat nekk a retrouver engouement ak donc aura bi mu xamoon auparavant vraiment bu doon loo xam te ne lu ñaawlu la gis nañ le président du CNG yéen ci yàbbi ku ci mel ni donc Père Mass Mbadane wax na ci ak Bécaye Mbaye ñi xaar également yeneen ñoo xam te ay kilifa lañ ci làmb ku ci mel ni euh, le doyen Malick Thiam ku ci mel ni Ngagne Diagne ñu daal ci yéey yàbbi wax aussi situation bu nu mel yan enseignement lañ ciy tiir ak yan ndogal lañ ci war a jël CNG yan responsabilité war a jël ba yu mel nii bañ a xewati Espagne grand Baye Góor grand Alamda di ziar Salif ku mel ni aussi waa France grand Boubacara maa ngi koy bëggee di ziar aussi mon ami le grand Mbaye Difoncé maa ngi koy bëggee wér di ziar ñëpp di leen sant di leen jox rendez-vous prochainement merci. tey jii suñu bëree woon xam na ne Alioune Seye daan ko xam ne mënut a jaar fenn Alioune Seye mënut a jaar fenn Alioune Seye ah tey ñu jóg ku préparer sa combat ah ay 4 mois ngay préparer sa combat di entraîner guddeeg bëccëg di dugg fu ne di sonn ba bëgg dee ah war a dem. ñu lay yàqal lu ndaw lu ndaw lu ndaw yàqal la koo xam ne xamuñu xamuñu ban façon ban façon nit la ban façon nit la laa xamul pour lan la ah, lii pour lan la su suñu jógee di wax ñun su suñu neexoon démb tey tey suñu demoon démb bakkan mën na rot ci làmb demb démb bakkan mënoon na fa rot démb waaye soo gisee loolu dañoo demoon suñu sago demee suñu xel comprendre nga bañ a yàq ndax comme kii li la ko doon waxee léegi tey jii ñun suñu leen toppoon ñoom mënoon na demee neneen te xam ne tey jii Alioune Seye xëy na dafa ànd ak ay kilifa ñuy defar loolu moo tax waaye mënoon na bañ a demee noonu a ñàkk démb bu booy bi bi mu defee li muy def xol li mu defee li muy def ah mel ni kuy sotti dara Alioune Seye foofu ci digg géew bi foofu ñun amu amuñu droit dugg fa amuñu droit dugg ci biir géew bi ñu ñun dafa am fu ñuy teg fu ñuy taxaw suñ bëggee dugg ñu indi ñu problème comprendre nga léegi taxaw ci digg géew bi ne de euh, ñaq la àndal day sotti ñaq ay gàllaaj ñëw di wër Alioune Seye taxaw moom donc Alioune taxawee ne la ñoom ñu taxawee moom mu ñëw mu ñëw bay wër Alioune Seye tourné rek xëpp ko saw mi ah saw la yow su waaye yow lii kenn xamul lu muy def kenn xunnu la def kenn xamul lan la ah loolu fan la fan la ko teg at fan lan at lan lan moo jaral loolu lan moo ko jar lan moo ko man loolu moo ma gën a métti man dara métti ma loolu suñu bis bi nu yàq rek moo métti man suñu bis bi nu yàq moo métti man loolu moo feesal sama xol ak Alioune ni mu sonnee ci combat bi bëgg combat bi ñàkk fukki ñàkk Alioune Seye leen man billaahi wallaahi wa taala barki Cheikh Ahmadou Bamba suñu bëree woon dem di nga gis làmb ju rëy dina ko duma dina ko daan loolu la ñu xam ñoom moo tax ñu yàq làmb ndax dañoo parewul dañoo jékkul du moromam pour la bëgg rek ak coow moo tax muy naan day jéem a dugg ci Alioune Seye waaye du moromam yemu ko fii du moromam li loolu lan xamoon moo tax ñu jóg pour yàq làmb ji ñoom. ñu gis bi Alioune Seye naajte nga tàggal ko sa sago ba mel ni ku tuur xeewal loolu lan la. mënu ma ko xool. Hmm. sama yaram moo fees mënu ma ko xool. mënu ma ko xool ndax loolu moo dul yoon loolu moo dul yoon yow ñoom dañoo ñëwoon pour yàq làmb démb ñoom ñoo ñëwoon pour bëre ñoom di saaga ndey lu ne def nañ ko démb ci làmb lu ne def nañ ko ñun ñuy calmer di calmer papa Dieng nii Alioune nii avant Alioune Seye junior avant lamb ji jàpp nañ ko yóbbu ko ci auto police bi ak ñeneen ak ñeen waaw ñu ñëw fekk euh, Alioune Sèye daal koy xëpp sunguf waaw ak gerte caaf ah ñoom loolu lañu bëggoon jëm lii lañu bëggoon li lamb ji demee lañu bëggoon ñoom ndax commencement ñun ñoo doon calmer di calmer di calmer di calmer di calmer ñu daal di am point nag ba Alioune Sèye dugg ñu ne xam naa dañ ko programme nag ba Alioune Sèye dugg ci biir géew bi ñu programmé ko ndax ñu ñëw ba ci ñun ne leen daf leen vigilance pour yàq lamb ci ndax jëluñu décision bëre. mais bi ñu xëppee Alioune Seye de sunguf bi est-ce que yéen ñi ëmb Alioune Seye de di ay magu équipe bi jotul woon ngeen dem ci ngànk lamb ji superviseur bi wax leen ne leen am na lu mu. waaw yow wax na leen wax na leen quoi yow lan bañ jàppee Alioune Seye jàppee Alioune Seye junior lan wax dem nañ ba ci am wax leen ko ñoom ñëpp ñoo ñooy xool ñoo ngi ñoom gis nañ lépp ñoom CNG ñoom gis nañ lépp gis nañ lépp dara ump leen ci làmb ji ñun du duñu yàq lamb ñun mosu ñoo yàq lamb bañ na ko bañuy wax dañuy ndax non ñoo ikri waalool ay nitu jàmm lan xam nga duñu yàq lamb mosu ñoo yàq lamb waaye lii baaxul ndax lii leneen mënoon naa am leneen mënoon naa am démb ca làmb ja leneen mënoon naa am waxuma ci wàllu Alioune waaye leneen mënoon naa am démb ca làmb ja ndax xam nañ ñu àndal xam nañ xale yi àndal leneen mënoon naa am ca làmb ja te leneen su amoon tamit dafay ñaaw rek su boobaa ñooy ñu gàkkat làmb waaye comme li nu wax rek su yor ikir bu ndaw jekki-jekki rek ne ikiri ànd ak façon nit bu ne nga ànd ak moom ah xamoo xamoo mbër xamoo ku ñàkku nekkul mbër topp mbër mi dugg ci biir géew bi ñooy am fitu def leen ñun loolu duñ ko def duñ yàq làmb Alioune lu mu yor si boppam la ko këpp waaye këpp ko kenn ñoom amuñu droit këpp ko gàllaaj pour yàq làmbam ñoom xamoon soo bëree dañuy daanu moo tax ñu doxalee nii ñàq Alioune Seye dadul moromam làmb moo tëradi moo tax mu demee nii waaye dadul moromam dadul moromam. man xam naa ni nga mel ak Alioune Seye dem nelaw sama rakk la nelaw ma maa ngi doog a yeew dama biddanti dama biddanti maa ngi doog a sama xol moo fees démb ndax man gëmoon naa ne man damay indi ndam fii man gëmoon naa ne damay indi ndam billaahi wallaahi wa taala suñu bëriwoon ma ñàkk sama ndey ak sama baay Alioune Seye da koy daan barki Serigne Saliou Mbacke suñu bëriwoon Alioune Seye démb da koy daan ñoom loolu lañ xam moo tax ñu yàq làmbu ji loolu lañ xam Alioune Seye dafa mës a yàq làmb Alioune kenn da ko mës a gis mooy histoire ci kenn yóbbu mbër sax histoire booy histoire muy calmé kenn mësu ko xamee ci histoire mais est-ce que li bokk na ci defar làmb yow waaye xam nga li defar làmb xoolal démb stade ni mel kan moo indi nit ñi Alioune Seye ñëpp mobilisé génn ndax yéene ko ñëpp sa génn mu duy stade ba mu fees dell lu mel ni bisu Père Khadim Samb ah ah lu mel ni bisu Père Khadim Samb mu ne day def euh, jibile euh, ah euh, di fe waaw ma ministre bi toog ah ñuy yàq làmb ci benn affaire bu ndaw benn booy bu ndaw ah colossar boo xam ne kenn xamul fu mu jóge mu ñëw du yàq làmb ji loolu pour lan la fan la ko teg fan la ko teg léegi bakkan su roon fee dem la ñuy wax ñu waxati làmb ndax am na ñoo xam ne suñu sañoon làmb fay am na ñoo xam ne suñu sañoon làmb fay ndax dañuy chaque jour ñoo ngi xeex làmb ah chaque jour ñoo ngi xeex làmb tey problème yu mel nii am xoola bi ku mel ni kii Père Khadim Samb daal di jël xaalisam ñëw financé mbëri daal def pour bëgg bi mu neex gërëm leen ah sant leen mbëri ndax niñ ko jàppale ah ndax li Alioune Seye wàcc daal nangu bëree spécial ah avant grand combat loolu lépp mu sant leen ci gërëm ñoom Alioune Seye mobilisé ne bi super xaadim Samb la il faut dañ ci jàpp mobilisé gën ñëpp jënd ay billets gars yi jàppale ko ñu jënd ay billets ñëpp dem stade ah ñu taxaw ñu yàq làmb ci benn affaire bu ndaw man loolu moom ma feesloo sama xol démb loolu moo ma metti man ba loolu moo ma loolu moo fees sama xol ndax xam ne su bëree woon wax a ñàkk jëriñu. man awma lu ma koy wax sama yoon nekku ci moom awma dara lu ma koy wax ndax lu ji njaaga mooy njaag lu jiñ njaaga mooy njaag ndax lii dañ ko programmé ñoom dañ ko programmé dañ ko programmé dañ ko programmé xoolal kii préparé Alioune Seye dem soo ko xoolee ne ko jàkk xam ne yow di tey jii xam nga kii moom moom làmb ji ñoo tax ñoom ñoom jóg décision pour yàq làmb ji waaye nag yàlla baax na. yàlla fi yow CNG bi ngànk làmb ji CNG dañuy def seen liggéey ndax gis nañ père Alioune Sarr wàcc na ba ci suuf naa indi leen ma ko ñu indi ko ba ñu indi ko ba ci Alioune Seye mu xool ko neen dem leen ñibbi ne dem leen ñibbi Alioune Sarr moo joxe ndigal waaw moom moo la wax ñu dem ñibbi moo ñu defalee ne ñu dem leen ñibbi ndax kii mënut a bëre ndax mënut a bëre gaañ nañ ko ku ko bàyyiwul mu ne day bëre waaye mu ne dem leen ñibbi ñoom nag xam nañ ñoo ngi doon xool ñoo ngi xib seen bët image yaa ngi fi ñoo ngi xool jaru ke amul ñoo xam ñoo ngi ratatati commencé di rëy làmmeñ ñi doon rapporté sax xam nañ gis nañ làmb ji ni mu demee démb ñi doon rapporté gis na làmb ji ni mu demee ñu doon rapporté yéen soo leen waxalee yàlla te dëgg tax gis ngeen làmbuj ni mu demee ñu toog jàkkaarloo toog ci ci ci ci kuy bi kuur bi gis nañ làmbuj ni mu demee xam na ñun dañ ñoo tooñ dañ ñoo tooñ ñun du làq làmb dañ ñoo tooñ dañ ñoo tooñ Alioune Sarr eh, papa Alioune Sarr gis na làmb ministre bi toog ah Xaadim Samb toog woo ay nitam daal di ñëw ah ci ay affaire bu ndaw benn booy bu ndaw benn colossar bu ndaw kenn xamul fu mu jógee ñëw di yàq làmb ji ah ci benn affaire bu ndaw kenn di yàq làmb ji ah lii fan la fan la ko teg Aliou ah, xam nga ne Alioune Seye tubaar kàlla macha allah xoolal mu li mu indi ci stade bi ah su bëree mu neex su feccee mu neex gaa yi yàq la ci affaire bu ndaw waaye ñoom ñoo ngi xaar seen ñoom ñu def seen liggéey gi xam ne gis nañ ni mu demee gis nañ règlement yi ñu doon rapport gis nañ ni mu demee xam nañ ñu yàq làmb ji ñun duñu yàq làmb ñun mosuñoo yàq làmb non non non gis ngeen ni mu demee amul bu ma gis ngeen ni mu demee euh, liiru ñun ñun sañuñoo àtte waxuma ngeen atte de waxuma ngeen atte waaye da ngeen di gis ku ñemewul yàlla tey waxal dëgg day gis ni wax. amul non déglu ma dañuy bàyyi nit ñi siise amul bàyyi nit ñi déglu ma dafa ndànk dama lay wax Fadel. Ah. fii amul amul loo xamee ni da ngeen di siise ñàkk si waxuma ngeen siise kuy wax dëgg te ñu ragaloo yàlla ragal yàlla da wax dëgg gis nga action bi ni mu demee waxuma ngeen siise waxuma ngeen siise waaye xam ngeen ni mu demee xam ngeen ku tooñ xam ngeen ku tooñ xam ngeen ku tooñ waxuma nga atte xam nga ku tooñ am na kuy atte kii atte gis na yéen so image yi mi ngi yéen am na ñu fi yor ay image après den ko teg ngeen xool waxuma nga atte waaye ngiy waxal dëgg te yàlla tax journaliste bu dul naa fekk di wax dëgg kuy naa fekk nag yaa xam waaye ku dul naa fekk di nga wax dëgg di gis nga lu xew gis nga action bi ni mu demee ah ah dañ ñoo tooñ dañ ñoo tooñ yéen journaliste yi jàkkaarloo ci digg géew bi gis ngeen ni mu demee suñu waxantee dëgg te yàlla tax ne waxal yalla te yalla taxu waxu len waxu na fekk di ngeen xam nu mu demé di ngeen wax deug limay tagoto tàggatoo baxna yalla nu yalla sutural rek. li ma yi ba ñu nek ak wa keur Alioune sey numéro 2 nek Alioune sey junior ak Boy nya magar sek Alioune sey ñu ngi lay nuyu. waaw ciandum ñu ngi lay fay gëna bon sante yalla julli seen bi sante suñu ñaari waaje santaat suñu serigne serigne babakar si santaat suñu sëriñ maam Malick Moussa Mansour yalla fi yag te waaw. mais li xew démb ngeen préparé lamb laaj ko ay mois def ci leen war def ñëw arbitre la dara desul arbitre cible incident bu doy waar xew ci bari yëg-yëg ngeen ci am. waaw mais ñun liñ ciy wax du bëri ndax ñun ku xam Alioune Seye xam violence la ku xam Alioune Seye rek xamal ni combat démb bi la ko la la nit doog dégg doog a gis mu yëkkati loxoom di dóore mais nag toro c'est toro gars yi boo xoolee ay sunguf lañ yor ak ay saw xëppee nañu xëppee nañu ko nu ne xëppee nañu ko nu ne. soo xoolee man premier man man man boo xoolee làmb ji ba mu dawee quatre quatre combats si la ma si la ma si la ma sëmee jàpp ndax ndax dama ànd ak da dama dama ànd ak dama ànd ak Aline ñu xëpp ko ñu ñu xëpp ko sunguf ma daw ba dàqe booy bi duñu ko dóori metti booy bi ñëw jàpp ñu man ak moom yóbbu ñu loolu fa lañ ko teg. làmb ko seetaan. seetaanu ma làmb ndax boo xoolee quatrième combat nee naa la quatrième combat si la si la ma buum si la amee si la problème buumi ndax booy bi yow koo xam ne CNG CNG man man si sama gis-gis ñu baal ma liggéeyuñu quoi ñun ay acteurs lañu ñun ay acteurs lañu ñun ay acteurs ay booy yoo xam ne nekk ñu ba nekkoon dara yor ay saw ay sunguf di di ko xëppaate loolu du yoon du yoon yéen yéen ñi nga xam ne yéen nekk si réseaux sociaux yi di wax yéen yéen war di wax CNG di CNG di leen dégg ñun ay acteurs lañu. mais pas ñu ay boyu ndaw yoo xam ne yor ay sunguf di ko xëppaate ñun ñu ñuy ja ñun ñu ñuy tees yu ñàkk yooyu. nekk xam ni nga mel ak sa turandoo euh, muy bëree jotoo seetaan combat nga daal nga paas ko mooy police nga dundee la. nee naa la man bu ma juddoo ba tey ci ak sama maa ngi mos a dugg violon waaw ni ma ni ma ko dundee mooy métti rek ndax moom saa bu bëree dama dama damay bëgg a nekk si wetam mais xëy na nag am na lu fa amoon am na lu fa am avant combat bi commencé fekkoon xëy na kon dina demee neneen daal. blessé nañ ko incident bi lan nan nga ko nan nga. waaw instant ah, eh, eh, eh, boobu noonu maa ngi dem maa ngi dem jàppante sax si biir violon bi. maag benn maag booy boobu noonu ma ma amul problème instant boobu noonu ban ko gaañee man bañatu moo si woon dara waaw man dama dama dama doon bëgg rek après ñu defee ma benn yoon waaw mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam bu ñu xëy suba. waa CNG par rapport ak li jot a xew. li may wax mooy waa CNG mooy waa écurie Waalo ñun dañu ñu yab CNG ñun dañu ñu yab ñun boo xoolee ak affaire yi ñii lim ñu dal da dafa bëri action yii yi ñu dal nekku si Alioune Seye rek lañ ko njëkkee de li ñu dal dafa bëri waa CNG ñoo xam ne ñun ci làmb lañ bokk dégg nga ñun ci làmb lañ bokk ñoom nañ bàyyi xel quoi mais démb. démb bakkan mo mo mo mo na fa. li ñu naan de après da ngeen jàpp ñax di ko dóor loolu lan ngeen ci doon. non man ñax man loolu fekkuma fa kon man duma ci wax. waaye lay nuyu. waaye ñu lay fay. di la ziar di naqaru li am démb rek li am démb moom neexul kenn te li am démb tamit kenn yéene wu ko Alioune Seye 2 parce que Alioune Seye 2 moom bëri woon daan rek lañ ko yéene waaw mais quoi mais jaar yi lu ñuy wax amul quoi. man man man benn dama am licence waruma dugg ci biir géew bi ñaar dama am combat waruma dugg ci biir géew bi kon ñax jaruñ man mënu ma egg si moom ba di ba ba koy dóor ay seize na wax li nekk te image tamit ñu ngi fi. li ma la mu la yow nit cible la. non xëy na man li ma am li ma fa nekk rek ñi mu xàmmee ñi ñi fa nekk ñëpp man ma am fa tur rek moo tax mu tur moo tax mu wax loolu mais man moom wax dëgg yàlla dóoru ma ko. kii moom si digg géew bi laa ñëw ci moom ni ko affaire ngaax ngeen def bi coow li amee ba kii am laa ñëw ci géew bi ni ko affaire ngaax yi ngeen di def mooy lan xool ni ngeen gaañee kii affaire yooyu. waaw sax gis nañ la nga siisu daal di jooy lan nga yëg. Ah, boobu noonu sama xol moo tooy parce que Alioune Seye ñun kenn yéenewu ko loolu ñun bu ñu bëri am ndam rek lañ ko yéene woon waaw ñun daal li ñuy wax moo Alioune lañ koy wax quoi na bàyyi lépp ñëwaat ko ñëwaat ay entraînement xam nga te xam ne làmb daf ko yaakaar démb ku see ñëw stade bi xam ne Alioune Seye mbër bëri na grand com mbër dem na ba bëri ay ñoom Bombardier ak Alioune Plomboolo waaw promoteur la ñuy ñaan rek ñu enchaîné combat yi Alioune Seye mën a bëri génn fii mu nekk xam lu ma nekk si leen parce que ñii duñu ay adversaire am. waa CNG. waaw waa CNG moom seen liggéey xam nañ ko Alioune Sall woo na Alioune Seye xool ko bu mu ko xoolee ni ko demal ñibbi kon ça veut ko moom xool na xam na li xew. te Alioune Seye billaahi wallaahi wa ñun avant ñoo dem vendredi dañoo teg ñun ñëpp mu ne bëgguma kenn indi coow man daan incha allah rabbi daan ngeen bëgg dinaa ko def billaahi vendredi lañ contact ba pare mu ne bëgguma kenn coow bëgguma kenn xuloo sama làmb coow da koy yàq te ñun lu mu bëgg rek ñun moom la bëgg war na yàlla waaw booy bi démb nooy def na ko nooy def na dafa am loo xamante ni tamit xam nga rafetul ci làmb man de su ma doon bëre ki ma may sens raw ma si làmb su ma ñëwee dinaa ko jox yar dinaa ko jox lépp mais su arbitre sifflé dinaa def fulla def fayda mais dinaa xam ni kii kat warul bëre man bëre nan ñàkk jariñ jo du ma gis mag bu ko may sens mbër yi ko raw si làmb dootuma ti ko may sens parce que yarul méritowul sax may sens waa nit bu la mayee sens da ngay xam ni kii daf maa may sens nga jox ko cër soo leen bëree nga def ci fulla def ci fayda loolu mooy loolu moom mooy sa fulla mais yow nga xam ni tey jii làmb ji du baax démb Alioune Seye ku ko gis xam ni carrément état bi mu indi billaahi ndam rek moo ko jik ni nga wax nag waa CNG nañ ci def seen matuwaay def ci seen liñ ci war a def parce que tamit xam nga neexul tamit nga pare sa combat def ci ay millions ñëw ñàkk ci ay maari foro loolu baaxul te yéen sax xam ngeen ni loolu baaxul waaw ok di leen wax tamit yéen tamit di rafetlu seen liggéey rek di leen wax ne leen yéen a ngi sonn yéen a ngi démb sonn ngeen trop waaye ñu ngi leen di jégalu xam ne liggéey bi moo demee noonu. waaw ñu di jégalu làmb di jégalu ñëpp di jégalu fan si Alioune Seye yëpp waaw di baalu àq ko parce que li am doomu neexul kenn ok.